aus billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahim mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar leen jox seen wàccuwaay ala kulli xaalin tey ñu ñëw leeral lu am solo ci lu jëm ci liggéey bi rafetlu ni koy mbooloo mi di taxawoo ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo ànd liggéey bi ñëpp xëy na nag yàlla dogal na jenn jëmm moo ëpp lu muy wax kàddu moom lañ ëpp lu ñuy dégg waaye am na ñeneen ñu nekk ci gannaaw ñu yor liggéey bi eh, fan yi passé des nañ fi ay vidéo yu am solo bam mu ñu baree bari ba nit ñi jàpp nañ ñu ngi bàyyi xel liggéey bi lu aju nag ci jafe-jafe ay wallax yu desee normal ak lu aju ci góor incha allah ci lañuy wax ak yi nga xam ne am nañ ci ay solution ak ay résultat ci kàttanu yàlla suñ borom koo xam ne nag dangaa dem ba yëg ni wala ñaan yi bàyyeekoo ci yow jëm ci ku jigéen ki am na jafe-jafe ba mënta dund normal pour nit mën a juddu am nañ ci ay tegtal wala am nañ ci ay saafara yoo xam ci kàttanu suñ borom ku ci jokkoo ngeen ci numéro yi incha allah rabbi dañ fexe nga jot ci garab yi foo mën di nekk ci àddina bi yëpp nga jot garab bu ko defee nga tàmbali koo jëfee ci kàttanu yàlla yàlla dina ci def sutura numéro yi nag mooy 78 443 75 27 ba tey it bu dee lu aju ci góor goo xam ne yàlla daa dogal mi gaaw a yëg boppam di gaaw a daanu moom it am nañ ci ay garab. incha allahu rabbi yoo xam ne bu ñëwee moom it dinañ ko jox ay traitement ba tey góor goo xam ne dangaa doon mballu ba sa awra commencé dellu wala góor goo xam ne sa awra daa dellu ba tuuti wa ilaa nga am jafe-jafe pour yegg sa bopp hmm, incha allah rabbi moom it am nañ ci ay tegtal am na ci ay yu nuy liggéey yoo xam ne yu naturellement la amul dara luñ ko composé naturel lay doon ci gàncax yi nekk ci sunum réew ak yoo xam ñoo koy liggéey ci kàttanu yàlla eh, boo ci dee diw yàlla dina dogal dina dindaat mooy sidit yi day dundaat dekkiwaat mel na mel kon ñuy bàyyi xel ne góor ñi nañ wattandiku lu aju ci wàllu mballu mballu baaxut day tax nga tële day tax sa awra dellu ba tey di naan ndox mu sedd baaxut day tax sa awra dellu day tax nga gaaw a tële eh, koo xam ne dangaa bëgg a yokk nag kàttan mooy gën a bëgg ngay mën di jëfandikoo lu yàgg waxoon nag ay ñaari waxtu wala ñetti waxtu wala trente minutes ndax nit ni ko yàlla bindee ci wàllu say nekkut loo xam ne dañ ci dem ñeenti waxtu wala juróom waxtu wala trente minutes sëy bu normal dëggantaan jàpp naa ni sax bu dee mat na cinq minutes ah, waru faa yem fa lay normalement bu dee sëy boo xam ne ku góor ko normal na ko jigéen ko normal ñuy naan ay comprimés nag di wane ne mën nañu dem trente minutes wala quarante minutes loolu tëlale la kon nit ki ni ko yàlla bindee ak ni yàlla organiser am dundam nekkut koo xam ne day mën a sëy loo xam ne jëmale fu kenn xamut kon dafa am nu yàlla bindee doomu aadama bi kon lépp lu aju ci wàllum góor gu tële am nañ ci ay garab yu baax lu aju ci koo xam ne awra bi daa dellu ba tuuti waat mu bëgg mu dikkaat incha allah rabbi am nañ ci ay garab ay produits yoo xam ni da ko ci diw ba yàlla dogal mu dikkaat ci jàmm ba tey it koo xam ne danga am jafe-jafe ci wàllum ay wallax njaan yu am jafe nga xam ne ni mu war a mel melu ko ba tax pour nga sëy pour mën a am doom dangay am jafe-jafe moom it am nañ ci ay tegtal yu wér incha allah rabbi foo mën di nekk ci àddina bi rawat nañu nekk Ndakaar wala rawat nañu nekk Sénégal incha allah rabbi nañ fexe nga jot garab gi ci kàttan yàlla nga di ko jëfandikoo yàlla defal la ci tawfeex kon numéro yi mooy 78 443 75 27 am na web am na Orange Money ci la ñuy dugal xaalis yi nga xam ne bun client bi déggook ak kon loolu it lu mat di bàyyi xel la baax garab yi nag incha allah rabbi dafa nekk promo. Mm, wàññi nañ ko bu baax a baax ku woote dinañ la ci jàppale xam ne tawat yi daa bëri te nit ñi seeni loxo jotu seen gannaaw moo tax ñu wàññi garab yi def ko lu digg doomu loo xam ne ñu ñëpp ci mën a jot kon ku am jafe-jafe ci wàllum wàllax njaan wala góor goo xam ne dangay faral di gaaw a daanu wala góor goo xam ne sa awara daa dellu wala góor goo xam ne dangay am jafe-jafe pour yëg sa bopp yooyu yëpp incha allah rabbi am nañ ci ay tegtal ay produits yoo xam ne ñoo ko liggéeyee fii ci gàncax yi nekk sunum réew composé ko suñ bopp jëfandikoo ko ba gis ci ay résultats kon garab duñ xëy xëy jox ko nit dañ koy gëstu jaarale ko fi mu war a jaar lépp ba fa jaaree nag ba noppi ñu doog koo jox doomi aadama yi pour ñu mën koo jëfandikoo pour mën cee gis résultat kon numéro yi mooy 78 443 75 27 mooy koo xam ne daal garab yi nu yor bëgg nga ko incha allah rabbi na nga fexe ba wooñu ci ñu fexe foo mantikaa nekk incha allah rabbi ñu yónnee la ko nga jël ko commencé koo jëfandikoo yàlla def ci sutura ci na sunu borom incha allah.